auditeurs yi nga xam ni yéen ay seetaan seen seen seen clic dellusiwaat nañ ak yéen ci beneen waxtaan mu aju ci wàllu weer wi te mooy lu aju ci mudum koor ndax tamit ab jullit lépp lu muy def war na ci xam la nga xam ne mooy àtte sharia ca loola gannaaw bi ñu leen waxtaanale ci émission bi passé waxoon leen ci laylatul qadr ak ñaan yi ci aju kon nag weer baa ngi jeex am na beneen jàmm yàlla boo xam ne mu ngi ñuy xaar ñu ñaan yàlla yàlla ñu ci yàlla yóbbu jàmm te mooy weer li ñu tuddee korité mu mel ni chariatul islamiya lépp loo xam ne dafa aju ci jàmm yàlla dana indi lan moo ci taxawaayu lislaam ban àtte la loola am mu mel ni waxtaan bi ci point yi ñu ko bëgg a aj ci mooy juróom benn point rek bu ci nekk duñ ci yàgg mooy dinañu wax li ñuy tuddee murum koor ban àtte la am ci diine mooy xukm bi waaye dinañu wax itamit mudum koor philosophie bi lan la dinañu wax it kan moom mooy ki nga xam ne mudum koor war na ko dinañu wax it ban waxtu lan la war a war ak ban waxtu lañ ko war a génnee ak ñaata lañ ko la war a doon bu ñu dellusee ci premier point bi mooy dañu wax ni atte bi nga xam ne moom la am ci jumhurul ulama wala jumhurul fuqaha te mooy alquran na ko sànn wax sunna sayduna muhammad ñëw dëggal ko moo tax dañu wax ne wa hiya ne inda jumhuril fuqaha bi nassil kitaabi wa sunnati te mooy farata la ci mbooleem fuqahaaw yi ci ñu teg ko nag ci alquran ak sunna bu fekkee ne alquran la ñu ne mooy aaya bi yàlla wax ca sabisma rabbika al aala qad aflaha man tadakka wa dakara isma rabbihi fa salla ñu ne aaya boobu ñu ne mu ngi wàcc ci li ñu tuddee muurum koor beneen bi nga xam ne mooy xadis bi seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ni naafi ibnu amar naafi moo ko solo jële ko ci ibnu amar moo wax ni yonent bi sallallahu alayhi salam sallam kaana yaqulu moom ci boppam mu ne ibnu amar wax na ni nazalat fi zakati ramadan te mooy aaya boobu ñu wax léegi ne na dafa wàcc na ci muurum koor xadis bi axrajahu albayhaqi boo demee ci xadis boo xam ne abu abu saïd al xudri moo ko nettali moo wax ni kaana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaqul qad aflaha man tadakka wa dakara isma rabbihi fa salla nee na yonent bi da doon taxaw da doon jàng aaya bii te mooy qad aflaha man tadakka wa dakara isma rabbihi fa salla suma qasama alfitra qabla an yaxduwa ila almusalla yowma alfitri nee na buy waxee aaya boobu mu pare séddale li nga xam ne mooy muuru kooram avant ci suba si bala muy dem ci julleekaay ba ci mooy bésu euh, korité bi beneen bi nga xam ne it mooy Seyduna Muhammad wax na ko pour wane ni sunna la te mooy xadis bi nga xam ne Abdullah ibnu Umar moo ko solo jëlee ko ci Seyduna Muhammad moo wax ne ana anna nabia sallallahu alayhi wa sallam farada zakat al fitri min ramadana ala kulli nafsin min almuslimina xurrun aw abdun rajulun aw imraatun saxirun aw kabirun saan min tamrin aw saan min shacirin rawahu malik wa nasai wa muslim abdullah ibnu omar dafa wax ni yonent bi farataal na azaka muudum koor ci weeru koor ci bépp bakkan boo xam ne jullit nga di gor walla ngay jaam ngay góor walla ngay jigéen ngay xale wala ngay mag benn mudd ci tàndarma walla benn mudd ci li ñu tuddee bele te loolu danañ ci ñëw buñ ci duggee ci détails yi benn boroom xam-xam bu tudd imam ash yi moo bind Naylul Awtaar dafa wax ne qawluhu fardun ci xadis bi mu ne fay fiihi dalilun ala anna sadaqata alfitri min alfaraidi nee na le fait bi wax ne farada nee na ci xadis bi mu ne dafay tegtale ne kon farata la murum koor te loolu moo wax ni mu wax noonu nee na toxal na wax ji mu wax ibnul manzur al ijma ala dalik d'accord nañ ci loolu kon bu la doon tëral buñ la doon résumé ci wax jooju mooy kon jàppal ne murum koor farata la boo xam ni yàlla moo ko santaane ci jullit yi yonent bi ñëw feddali ko ci jullit ñi loo xam ne dañ koy génnee incha allah dana ñëw ci kanam pour wax na nuñ koy génnee ban philosophie bi lan la zakaatul fitri dañu wax ni dafay ñëw pour deema laabal ki nga xam ne moo wooroon ci weer wi mën na am am na ay ay manqué manqué ci wax loo xam ne wax na ko doon ko wax ci jëf yoo xam ne jëf na ko te waroon woon ko jëf bu ko defee mu ñëw laabal yàq-yàq yooyu nga xam ne amoon na ci biir kooram wala manqué-manqué yooyu nee na azaka bi ngay génne muy mudum koor bi bu ñëwee dafay laabal loolu moo tax ñu ne dañu wax ne azakaatu tathiirun mi mima waqaa minhu min allaghwi wa rafasi ay alqubxi fi l afaali wal aqwaali li takuna awnan lilfuqara ala kifayatihim yowmal iidi dañ wax ni day ñëw pour laabal ki nga xam ne moo doon woor ci ay wax yoo xam ne mën na am wax na ko ci biir koor gi te waru doon ko wax wala jëf yoo xam ne jëf na ko ci biir koor gi te waru koy jëf mu ne waaye dafay nekk nag loo xam ne ndimbal lay doon it ci ñi nga xam ne ñooy fuqaraaw yi ci bésu feet bi ba nga xam ne du ñu dem taxawaalu di wër fenn loola tax hadis bi yonent bi wax ni hadis bi E, akramatu ibnu ak moo solo xadis bi jëlee ko ci ibnu abbas moo wax ni farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakata alfitri tuhratan lilsaaimi min allaxwi wa rafasi wa tucmatan lilmasakini nee na yonent bi dafa wax ne yàlla farataal na weer e, génne muudum koor mu nekk loo xam ne dafay laabal ci ki woor ci ay wax yoo xam ne ay waxu safaan la wala ay jëfu safaan waaye daay nekkiti loo xam ne ñam laay doon ci ki nga xam ne mooy masakin yi mu wax ne nag man adaha qabla salaati fa hiya zakatun maqbulatun mu ne képp koo xam ne génnee nga asaka muudum koor boobu avant ngay dem di julli ji mu ne daay nekk azaka bu ñu nangu mu ne wa man adaha képp koo xam ne génnee nga ko nag kañ nga ko génnee baada salaati gannaaw bi nga jullee ba pare ci nga doog a génne mburum koor bi mu ne su boobaa fa hiya sadaqatun min sadaqaati su boobaa dootul nekk mburum koor mais saraxlaay doon rek comme yeneen sarax yi nga xam ni julli ñi dañ koy faral di te mooy nga xëy rek génne sarax dem saraxe ko miskin yi nee na loolu moom ñoom ñoo yem daraja waaye bu fekkee ne nag da nga génne mburum koor bi balaa ngay génni dem ci julleekaay ba nga génne ko su boobaa dañ koy natt dañ koy eh, jox garaatu li ñu tuddee mooy muudum koor kon li ma bëgg a wax mooy bala ñuy nangu ne muudum koor la nga génnee ko avant ngay dem julli ji ca ca julleekaay ba ñu tuddee ko muudum koor waaye bu fekkee da nga dem julli ji ba pare ñëw doo ko génnee dootuñ ko tuddee muudum koor waaye sarax lañ koy tuddee waaye nag loolu dafay fekk mooy ki nga xam ne mën na ko waaye ki ko mënul saa yu ko fi amee def ko tamit su boobaa dañ ko koy bindal yoolu ku génnee mudum koor léegi nag loolu mooy ñaareelu point bi ñetteelu point bi mooy kan ci lañ wax ne war na ko mu ne ki war a génne mudum koor mu ne na nekk ab jullit nekk góor boo xam ni am na lu mu mën a dundee loo xam ne mën na ci dund moom ak ay ay mbokkam te mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci benn xadis boo xam ne ibnu amar moo ko nettali mooy amara llahu amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi sadaqati alfitri ala alsaqiri walkabiri walxurri walabdi mi man tam tum man tumma wi nuuna daarul xudni moo solo xadis bi yonent bi dafa wax ci xadis bi ne yàlla <clears throat> yonent bi digle na muurum koor ci ñi ko war a génne mooy ndaw war na ko war na ko génne muurum koor war na ko mag war na ko gor war na ko jaam war na ko ci ñi nga xam ne moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooy dund ak yéen te mooy bépp jullit boo xam ni gor la wala mu dem jaam muunum koor war na la waaye nag bu fekkee nga mën ko ci li nga xam ne moom ngay dundee su boobaa dinañ la wax ne war nga ko mën a génne léegi nag loolu moo doon ñetteelu point bi ñeenteelu point bi ban waxtu lañ ko war a génnee ndax foofu boroom xam-xam yi dañ ci wuute euh, am nañu wax ne tajib bi tuluuci lfajri yowm al iidi lfitri inda alxanafiyun boo demee ci madhabu abu xanifata dañu wax ne dina war ci moom mu génnee ko ci fajaru bés bi nga xam ne mooy basu iid bi kooku xanafiya loolu la ñu wax wa inda gayrihi nag bi xurubi shamsi axiri yowmi ramadan bu fekkee ne ñeneen ñoo xam ne duñu ma duñu xanaa xanaafiya yi dañu wax ni dana war bi xurubi shamsi ci sow jant axiri yowmi ramadan te mooy dernier jouru weeru koor bi te mooy bu fekkee ne weer yi dafa am vingt neuf jours bu ñu demee boo vingt neuf jours bi jant bi bu sooy rek war nga mën a génnee foofu lay waree ndax nag ñu tënk ko ci xadis bi yonente bi sallallahu alayhi sallam wax ci wax ne anna nabia sallallahu alayhi wa sallam farada zakatal fitri min ramadan te mooy yàlla yonente bi farataal na génnee muurum koor ci weeru koor kon doo xaar ba weeru koor bi passé ngay du ko a génnee kon yaa ngi koy génnee ci weeru koor bi te mooy dernier jour bi bu jant bi soo nga génne ko li tax ñu am wuute foofu ñi nga xam ne dañu wax ni man maata baada gurubi shamsi axir ramadan min yowmi ramadan qabla yowmi qabla alfadiri yowmi aliidi inda shafiiya wa malikiya ñu ne boobaa kooku dañ koy génneel adaka maanaam ki nga xam ni dañu wax ni ci fukk euh, bés bu mujj ci weeru koor bi bu fekkee ne weer wi dafa am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent jant bi di so su boobaa war nga génne mudum koor bi nga génnee ko bu ñu ne tey la vingt neuf ci ngoon gi nga génnee ko kon dafa am heure bi muy war pour nga génnee ko ak heure bi ñu ko war a joxe heure bi mu war mooy ci ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñeent wala fanweeru fan ca ngoon kon bu ne fekkee ne weer bi dafa am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent kon bu jant bi sooyee boo nga gis weer wi war nga ci nga génnee fa lay war waaye kañ lañ ko war a joxe danañ ci danañ ci ñëw ci kanam moo tax boo demee ci xanafi yi dañuy wax ni bu fekkee ne da nga ko génnee ci vingt-neuvième jour bi ñoom dañu wax ni koo xam ne dafa dafa daf ci juddu ci moment boobu dañ ko wax ne dañ koy duñ ko génneel azaka waaye bu fekkee ne ci mazhab maliki yi nga bokk wala ahbu ah, shafii ñu ne su boobaa ki judd ci heure boobu danañ koo génneel azaka léegi nag ñu ñëw ci heure biñ ko war a joxe xam nga bokkul ñaar moo am mooy heure bi mu war pour nga génne ko ak heure bi mu war pour nga joxe ko heure bi mu war mooy bu ñu waxee ne tey mooy ñaar fukkeele ak juróom-ñeent ci weer wi su boobaa ci lay war pour nga génne ko boo ko génnee ba pare nag kañ nga ko war a génnee kañ nga kañ nga ko war a joxe mu ne yaa ngi ko war a génnee yu saabu ixraajuha qabla salaati al iid maanaam sopp nañ ko bala ngay dem julli ji iid waaye sib nañ nga yéex ko def gannaaw bi nga jullee ba pare ndax mooy xadis bi ñu waxoon ci gannaaw rek mooy fi yonent bi waxoon ni man addaha qabla salaati fa hiya zakatun maqbula mais képp ku ko joxe avant ngay julli ji mu ne daay nekk sarax sunu nangu daay nekk azak muurum koor bu ñu nangu mu ne wa man addaha nag bada salaati képp ku ko joxe bi nga jullee ba noppi ñu ne fa hiya sadaqatun min sadaqat su boobaa sarax laay doon rek ci yeneen sarax yi waaye boo demee ci malik imam malik ak xanaabila yi wa anhum bi ixraajiha qabla al iidi bi yowmin aw yowmayni xool nga lu mel ne ahmad ibnu ambal ak imam malik ñu ne sopp nañ dagan na nga génnee ko deux jours avant c'est-à-dire mun nga génne mudum koor ñaari fan avant korité bi kon yow bi yowmin aw yowmayni waaye bu dee ñële moom dañu wax ne mun am na ñoo xam ne sax dañu wax ne bu weer yu teroo rek mun nga ko génne waaye li nga xam ne moo wér daal ci imam Malik mooy mën nga ko génnee bi yow min ak yow may ni ndax li tax ñu wax ne dañ koy génnee avant ñuy dem ci jullekaay ba ndax ñi nga xam ne ñooy fuqaraaw yi buñ ko génnee jox leen ko ñoom ñun mën a am itamit sens mën a am lu ñu dundee nga xam ne du ñu dem di yi bu ko defee ñu mën a participer ak ñoom ci julli bi waaye bu fekkee ne joxuñ leen ko ñu waroon a dund du ñu am lu ñu mën a euh, sutur la du ñu am lu ñu mën a dundee pour mën a dem ca julleekaay ba looloo tax l'islam bëgg boo ko génnee na ko teel a joxe ñi nga xam ne ñooy fuqara miskin yi bu ko defee ñoom it ñu mën a bokk ci feet bi ndax sayyiduna Muhammad moo wax ne amarana nabiyu bi zakati l fitri an tuadda qabla xuruji i ila salaati sahabatul kiram dañu wax ne yonent bi dafa ñu doon wax ni na ngeen génnee mudum koor bi bala ngeen di génni dem ca julleekaay ba beneen xadis boo xam ni ma xadis boobu moom la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ci ibnu aman moo ko solo mooy amara bi zakati fitri an tuadda qabla xuruji naasi ila salaati même xadis la mooy yonent bi digle na ñu génnee mudum koor bala ñuy xëy dem ca julleekaay ba noonu waxtu boobu nag waxtu bi ngeen ngeen maanaam waxtu boobu ñu wax sopp nañ ko ci maanaam sopp nañ nga génne ko waaye yajuusu qabla fitri bi yawmin aw yawmayni bu ñu la waxee ne sopp nañ ko mooy boo xëyee bala ngay julli ñi nga génne ko waaye tekkiwul ne mun nga ko génne ñaari yoon wala ñaari fan benn fan avant wala deux jours avant kon loolu li muy tekki mooy yoo ñaar yëpp mën na nekk léegi nag ñaata lañ ko war a génne ak ndax mën nañ ko génne ci xaalis boo demee ci fuqahaaw malikiye yi maanaam képp ku bokk ci mazhab malik ñoom dañu wax ni yeneen mazahib yi imaam malik loolu la wax imaam shafii loolu la wax ahmad ibnu ambal loolu la wax xanaa bi xanaafiye yi xanaafiyoone yi kese ñoo wax ne mën nga ko génne ci xaalis dinañ ci ñëw ci détaillé ko bu fekkee ne ceeb la dañu wax ne li gën a bokk li gën mooy xam nga bu ñu ne mudd mooy loxo Seyduna Muhammad bu fekkee ne nit ku diggu déwmu la koo xam ne guddul gàttul réyul lool tuutiwul lool ñu ne bu bu tàllalee ñaari loxoom yi tibb ci ceeb bi lu toll noonu nga def ko lu mot ñeent su boobaa loolu mooy doon mudd loolu mooy saa saa boobu nag bu ko nit ñi di calculer sans ñu ne liñ koy génnee na nekk ceeb wala nekk dugub waaye mu ngi aju dañu wax ne bu ñu koy génnee dañu xool waa réew ma li ëpp ca la ñu dundee bu boobaa réew mu nekk boo demee ci réew yoo xam ni lañu ëpp ca la lekk mooy ceeb comme lu mel ni senegal waaye dañ fi jundee dugub kon ñaar yëpp mën nga ko génne mën nga ko génne ci ceeb mën nga ko génne ci dugub ak ñi dundee ñebbe waaye bu fekkee ne ceeb la xeetu ceeb yi ku booba dañu wax ne na nga génne kilos cinq cent moo gën a moo gën a moo gën a wér deux kilos su fekkee ne euh, ñebbe la boobu dañu wax ne deux kilos cinq cent la bu fekkee ne nag euh, dugub la ñu ne deux kilos kon xool nga bu dee ceeb ñu ne 2 kilos 500 la bu fekkee ne ñebbe la ñu ne 2 kilos 500 moom it waaye bu fekkee ne euh, li ñu tuddee euh, dugub ñu ne 2 ñu ne ndax dana dagan ñu génnee lu tollu ni kilo boobu ñu génne ko xaalis ñu ne nag mooy li ma waxoon léegi ci gannaaw mooy jumhurul alxana illa alxanafiyin moo tax dañu wax ni lam tujiz amatul fuqaha ixraaju ixraajul qiimata nee na boroom xam-xam yépp nee na ñoom d'accorduñ pour nit di ko génnee ci leneen lu dul lu ñuy dundee te mooy benn muy dugub walla muy tàndarma wala muy ñebbe walla muy dugub wala muy eh, yeneen xeet yi nga xam ne nit ñi am na rew yoo xam ne dañ koy dundee lu mel ne acake boo demee ko d'Ivoire waaye nag boo ne ñu ne aja wa ajazahu abu xanifata abu xanifa moom moo wax ne mën nañ ko génnee ci li ñu tuddee e, dugub waaye boo demee ku mel ni e, boo demee ci fatawa ibnu taymiya rahimahullah dafa wax ni <coughs> dafa wax ne awjabaha allahu taaman kama awjaba alkafaratu taaman nee na yàlla bi muy maanaam yàlla bi muy war ne wax ne war nañu génnee murum koor nee na ci lekk la waxoon ne nañ ko ci génne comme ni mu waxee ne kii kafaara na génne lu ñuy lekk kon moom loolu la wax boo demee ci ibnul Qudaama ci al ni dafa wax ni wa zahiru madhabi maanaam li mu feeñal ci madhabam te mooy madhab imam Malik imam Ahmad mu ne annahu laa ju yujzi'uhu ixraajul qiimati nee na du doy du ba du doy ngay génnee valeur bu toll ni ni kilo bi nga di ko génne xaalis fi shay'in min zakawaat mu ne benn azaka boo xam ne dañ ko war a génne ci mudum koor wala kafaara boo xam ne dañ ko war a joxe ci ci ci ci dund ñu ne kenn du ko jël di ko génne di ko def xaalis ma ne te loolu nag nee lii mu wax wa bii qaala Malik wa Shafii mu ne lii mu wax imam Malik moom la wax imam Shafii moom la wax kon bu ma doon tënk rek yéen ñi seetaan émission bi mburum koor faratala ci ab jullit góor wala jigéen euh, xale walla mag góor wala muy nekk jaam ci xadiisu euh, ci wax si ak ci waxu sayduna muhammad beneen bi ci des mooy dañu wax ne xikma bi li tax yàlla santaane ko mooy dafay laabal ki nga xam ne moo doon woor ndax nit dafa bari ay manqué-manqué manqué manqué yooyu am ci koor gi dina weeru koor bi bu ñëwee moom mooy maanaam mudum koor bi bu ñëwee mooy raxas manqué manqué yooyu ci am te dañ wax ne nag eh, weeru koor am na donte xadis bi dañ koy sax eh, daifal am na fu ñu waxee ni nee na ki woor ba pare nee na dañu aj sa koor gi diggante asamaan ak suuf fee génnoo mudum koor boobu koor gi du dem donte xadis boobu am na ñu koy jàpp kon loolu ñu bàyyi ci xel beneen bi ci des mooy heure bi ñu ko war a bu mu war war nga ko génne deux jours avant walla nga génnee ko bu ñu ne jant bi sonn tey ba ñu gis weer wi nga natt ko fexe boo xëyee nag balaa ngay dem ci julleekaay ba nga génnee ko mën ko jox fuqaraaw yeeg miskin yi nga xam ne ñoom lañ ko war a jox bu boobaa ñoom ñu mën ko utiliser ñu ne nag bu fekkee da nga tënku ci masab imam Malik boo génnee xaalis bu bokkee ci aham ahmad ibn ambal bu ko génnee xaalis bu bokkee ci ashafii bu ko génnee xaalis bu fekkee da nga tënku nag ci ngiiru alxanafiya yi ñoom ñoo wax ne mun nga ko génnee xaalis te ibnu taymiya ci fataawaam dafa wax ne kenn waru ko koo génnee kenn waru koo génnee xaalis kon lii daal moo doon waxtaanu tey bi di rafetlu lépp luñ ci baax ngeen xam ne mbaaxu yàlla la lépp lu ci manqué ngeen xam ne nit a ko mattul ak suñu gàtt xam-xam ak su ñàkk fasaa liñ ci jubloon rek mooy jullit bi mën a jëriñu yàlla ñu yàlla may dëgg ak topp lépp luñ ci def yàlla ñu ko yàlla nangul yàlla ñu yàlla may ñu dem ci ci jàmm waaye li ñu woor ci yëpp yàlla ñu ko yàlla nangul waaye lépp loo xam ne ay manqué manqué la yàlla bu ñu ko yàlla jàppee boo defee ñu gërëm ñiy seetaan émission yi ci réew mi ak ci bitim réew ñu bëgg wax nag képp koo xam ne daal bëgg nga bépp vidéo boo xam ne def nañ ko ci incha allah boo abonné ñoom Souleymane ñi nga xam ne ñoom ñooy gérer groupe bi ñoom danañ fexe ba nga jot ci vidéo yi te incha allahu bu ñu génnee ci koor gi danañu ñëw spécialement pour jàngale commencé ko ci li ñu war wax wallu làpp maanaam ban ndox lañ war a utiliser ci jaamu yàlla dinañu ñëw ci njàpp nan la ñu jàppee lan mooy farata yi lan mooy sunna yi lan mooy ngeneel yi bu ñu ci jógee ñu indi leen lan mooy tiim lan mooy farata yi lan mooy sunna yi buñ fa jógee ñu indi lan mooy sangu farata lan moo koy waral ak lan moo koy yàq ak lan moo ciy farata lu dul farata noonu daal lañ ko bugg a def incha allah pour nit ñi mën ci jëriñu ndax comme léegi dem jóg jël sa bindukaay dem jàngi yombul waaye comme léegi mooy de communication yaa ngi fi ak li nga xam ne mooy bi audiovisuel yi ak euh, vidéo yi yëpp nit ñi mën a cee jëriñu liñ ci jublu mooy jëriñ umma bi liñ ci jublu mooy jàngal ñi nga xam ne peut-être amuñoon a jot dem jàngi yal na yàlla defal leen tawfiq yal ñu yàlla nangul suñuy koor te baal ñu suñuy bàkkaar mbas mi nga xam ne moom la ñu yàlla nattoo ñu ñaan yàlla yal na ko yàlla génnee yépp ci àddina si ak fekk foo xam ne nit a nga fa rek na ko yàlla teggil ñi ci génne àddina yàlla yërëm leen ñi tawat yàlla saafara leen kon fii la émission bi di yem ñu gërëm tag tey nag moom suñu beneen caméra lañu àndal mooy ki nga xam ne mooy patron bi mooy Souleymane Ba moom moo nekk ci caméra bi